loolu nag boo gisee nga laaj ko la ma koy conseillé moom maa ngi koy wax sama diggante moom de nga ko wax ci presse bi en tout cas yoon bi mu nekk baax na yoon bi mu nekk baax na waaw man xam nga ni gis Amadou Ba yombul ci man yow ah, honorable boo ko bëggee ko mën la wutal ki émission sa sa sa diggante Amadou daal tukki rek ah. ah kon loolu teg naa ko solo xool incha allah ñu ñëwaat ci playlist bi. <laughs> même Sonko boo ko bëggee mu wutal émission. incha ah. bëgg naa Amadou ba bëgg naa Ousmane Sonko. Sonko xaar moo ko ba am dana jëlam rek. léegi danga koy jéem a woo ñu xaar honorable woo Sonko ndax euh, daf ko fas yéene invité ci émission bi maak moom ñu toog ma laaj ko question yu bari nag. <laughs> Ousmane Sonko premier ministre. bu jàppul jëpp mais eh, xam naa ni voilà. ok. xam naa ni dana rappeler. incha allah incha